yow laa xaar. ayca ayca ayca. ah sa délégation. fayewu ma yi fayewu ma yi. sama yaram dafa tàng. dama leen di yow lépp sax la laa la sant tepp tepp bul yàqam dafa nànk. ren baa ngi nii. buur bu jéem baa ngi nii sa délégation dafa nag ñu ñëw yow dañ lay dama ne géwél bu mag nag mooy ñëw jël bal ba ca xare ya daan ko mu daan ay ëlbatu gis ay géwél dama ne eh foo la nekk attention ren baa ngi nii ñëw na baa ngi ngi nii góor baa ngi nii kii mooy la ren dama ne moo bëgg la ren moo ci toog comme toogee ci tool ba léegi na nga ko joxe fu nekk dafa tànkam xam ngeen lu ko war ñu daan laa jaram daan ngi nii dama ne ndaanaan bu jigéen baa ngi nii. dëgg la wala loolu xaar sa xol. mais lan la mais la grande reine ngi nii. ndaanaan baa ngi nii. ndaanaan baa ngi nii. kàddu baa ngi nii. góor baa ngi nii. nank nank tànk tànk. waaye nga xam sa ñaw. Ñaay Dolli Ñaay Dolli Ñaay Dolli Ñaay Dolli yàlla ko dàmb yàgg Ñaay Dolli moom Ñaay Dolli Ñaay Dolli yow yaa yaa Dolli mu ne Ñaay Dolli kenn du yow yaay ndaanaan yaa baax yaa tabe yaa ñor yaa tàgg yàlla la yàlla defal jàmm yàlla may la fan bu gën a góor gi yaram